bi ci tegu mooy ci yi nga xam ne dafay tax nit ki bañ dëgg kon mooy saytaratul aadaati wa taqaalidi al mawrusa léeg-léeg aada yi ak cosaan yi ak baaxi maam yi ak lañ fekkoon baay ak maam loolu dana dox suñ diggante ak dëgg dana dox suñ diggante ak dëgg kenn ku ne xam na ne màggal ay maam ak ñala meññi loolu cosaan la ci doomu aadama banqaas bu nekk day fonk cosaan la ko meññi loolu moom moom jullit ak lu dul jullit a ci yam sax nag xanaa su demee ba li ñu tudde fitra yàqu maanaam nit ki natiirom yàqu ba nga xam ne daanaka tekkeetul dara comme yenn société yi nga xam ne dem nañ ba li ñuy tudde famille amatul joxatuñ ko benn maanaa ndey bàyyi ku ko am ak ku ko amul lépp benn la waaye société jullit moom moom wax dëgg yàlla euh, kenn ku nekk ña la meññi am na place boo leen di jox boo xam ne place boo dul jox ñu bari la aada itam dafa doon lu rëy ci nit aada ak cosaan ak nit ki lam doon yor ko mu doon lu muy yëg ci deretam muy daw lu doy waar la aada moom i nag digganteem ak diine dafa doon ay mbir yoo xam ne yu doy waar la léeg-léeg aada ji diine dana ñëw fekk muy ju baax mu ne ah, jàppal wàññiwul dara lu baax la léeg-léeg diine ñëw fekk aada baaxut mu folli sànni ca àll ba bàyyi leen nangam li tax aada nag mbiram jafe moom itam dafa neexut a bàyyi dafa neexut a nit ki tàmm dara xëy xëy bàyyi ko lu jafe la nit ñu baree bari tey am na aada yu ñu yor xam ne ñoom xamal nañ ko seen bopp bëgg nañ koo bàyyi boo demee sax def nañ lu nekk pour bàyyi ko mu të léeg-léeg nga gis kuy tox mu dal ko xam ne ba mu nekkee xale xëy na doon roy rek moo ko daloon àndoon na ko maas ñu nekk ci loolu mu def loolu dem ba mu yàgg mu xam ne lii baaxul ci diineem baaxul ci santeem baaxul ci euh, dara ji mu war a yor sax ci kanam nit ñi fonkeel gi ñu ko war a fonk bu yëg ne loolu lépp lu koy suufeel la mu bëgg ko bàyyi def lu nekk mu aada lu jafe bàyyi la nit ki lim tàmmal ay cëram xëy bàyyi ko effort bu rëy la waaye nag lu mën a nekk la nit ki lim fas yar boppam ba tàggatu ci ba ay cëram làggi ci ngir mu bàyyi ko effort bu rëy lay def mbirum aada noonu la demee li ñu tuddee taqaalit muy cosaan noonu lay demee ci nit ki ndax da ko doon loo xam ne da ko doon ne ci ñum fonk muy ay baay ak i maam ak ña nga fi fekkoon kon atteb lislaam ci aada moom mooy noonu aada bu rafet lislaam du ko tere waaye nag dafa am aada yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngi wax ne aada yooyu yu làggi la nag ci xeet wi du fi jóg mukk maanaam du jeex diw mën na cee mucc ak diw ak diw ak diw waaye mu jeex nag ba jóge fi xeet wi nee na aada yooyu duñ fi jóge yooyu mooy ban ak ban nee na arbaun fi ummati min amri ljahiliya laa yatrukunahunna ne am na ñeen fi mbir ci sama xeet wi yoo xam ne loolu de bokkut ci lislaam ci caddo la bokk waaye nee duñ ko bàyyi ba ca jëkk nee na alfaxru fi l ahsaab tiitaroo saw askan tiitaroo saw askan maa gën diw sama askan moo gën askanu diw wii mooy wu kawee bi ñii ñoo noobal ñii ñoo ñi ci tegu ñii ñoo ñi ci tegu asaas yooyu tamit beneen bi nee na mooy wattaanu fi l ansaab nee na mooy jam askani ñeneen ñi kii ñeeño kii nangam la kii jaam la kii nangam xeet yu mel noonu ndax jaar yooyu ñooy ànd ki yëkkati boppam toujours day suufeel keneen pour pour yëkkati ku gi nag mën a fës nee na wal istisqaau bin nujum nee na ak di sàkkoo asamaan si tawal leen ci ay ci ay biddiw istisqa leen ci borom xam-xam yi firee nañ ko piri mu gën a yaatu sàkku ab taw rek waaye gëstu sax sa mbirum bopp ndax lii dana baax ak du baax ak gaaf la ak du gaaf ak di ko xool ci ay biddiw loolu ba léegi mi ngi ci xeet bi léegi nga dégg ay rajo sax yoo xam ne da nga leen di wax âge bi nga euh, date bi nga judd diggante weer sàngam ak weer sàngam la ñu ne diggante boobu ku fa judd moom sa cër mooy nangam ak nangam ak nangam ak nangam bu dee tàmbalee béréb sàngam bu béréb sàngam yi ñu di ko tudde jiit yi ñu di ko tudde ab ab baak yeneen yi ñu di ko tudde nangam xeet yooyu yépp ci biir bunt bi ci lay dugg ba ko ñeenteel mu ne wan niyaaxa maanaam nit ki génn àdduna ñi di ko jooyoo di yuuxu ca kaw di yëkkati seen i waxuñu ne bu kenn jooy de rangooñ mën naa sotti ko ci bët waaye nag kàddu moom di su ko yëkkati kon ñaar yu jëkk yi ñoo nu gën a itteel foofu mooy damoo saw askan ak suufeel askanu jàmbur ndax loolu am na fi defe naa ne kenn ku nekk gis na société bi li fi nekk dañ koo séddale mu nekk ay catégorie yoo xam ne ñii ñooy ñii ñee ñooy ñee ñee ñooy ñee te buñ delloon ci histoire kat buñ seetee danañ gis ne yooyu la ko jur maanaam du dara lu dul buur yi nañ doon dundeeg ñi leen wër kat nañ doon dundeeg ñi leen wër kenn ku ci de métier ma nga doon def ñi jox la valeur bu toll noonu buur bi bu masaan génn di xeexi am na ñoo xam ne ñoom ñooy armée bi dañuy xeex ñoo ñu ay jàmbaar lañ yoo xam ne ñoo ñooñu kenn euh, wutalu leen sax benn classe daanaka boo xam ne dañ naan kii waaye ay gelluwar ak ay tur yu bare bari lañ leen jox yoo xam ne bu ci nekk daal li muy firi mooy kooku ci jàmbaar yi daan ànd ak buur di xeex la am na ñoo xam ne lay seen liggéey mooy soññ nit ñi li ñu leen di soññee mooy di leen bàkk yor seen i ndënd di tëgg am na jiin yoo xam ne bu ñu ko defee rek yenn jàmbaar yi tàngoor ñu ne ñoo ñooy géwal yi ginnaaw ñooñu ñu di gàndaay di xeex ñu ne kon ñooñu ñoo gën a suufe tuuti am ñeneen ñoo xam ne lay seen liggéey mooy defar ngànnaay ya ñooy defar jaasi ji ñooy defar ba ñooy defar fexal ga ñu ne ñooñu ñooy tëgg ñoom ci kër ga lañ toog dañuy defar rek di yónnee waaye téyewuñ xare bañ ah kon ñooñu ñoom itam kon suufe nañ am ñeneen ñoo xam ne rang social bi ñu yoree mooy buur dafa jekki ba mu yàgg mu woo ay soldaar yu bari te amu ko mu ñëw ci dëkk rek ñu daal di yéene fii de ko fi fanaan tey dib jaam ña ko dégg te amuñuy pexe ñu daw ñu jàppe seen bopp ay jàmbaar ñu taxaw jaamaarloog buur xeex ak moom ba mu gàñe leen jàpp leen indi ñu ne ñuy jaam lañ ñu ne ah kon ñoo tam ñu suutale waaw xoolal ñooñu ak ñi daw ñu tane ñi taxaw jaabaarloog buur di xeex ba buur jàpp leen indi leen def leenu jaam ñooñu koy ñoo tane ñi ne ku fi fanaan dib jaam rek ñu daw ñooñu koy ñoom wax dëgg yàlla waroon nañ leen a xam ba wutal leen benn classe way na kenn xamu leen ñoo ñooy gor yi tey ñi ñu yëkkati ci kaw ak ñu noobal yeeg ñu mel noonu ñooñu ñoo dawoon kon mbire ngi foofu moo xam ne noonu la tëdde ci aada ak cosaan ñi di ko jël di ko màggal di ko màggal nag ba mu àgg foo xam ne ku ci cosaanoo ca ñenn cosaanoo ci ñenn mën naa dem ba àgg si sax bu ñaan say jabar fii ñu ne ko ah kooku kat duñ ko may ndax cosaanam nangam ak nangam la cosaanam mooy géwal ba ñu cosaanam kat mooy tëgg ba mooy tëgg ba mooy looy ko defar ngànnaay yi buur doon xeexe géwal ba mooy kan mooy ka nga xam ne moo yoroon dënd ma di leen soññi pour ñu mën a xeex jaam ba mooy mooy ko jaamaar la woon ak buur bañ lànk bañ a daw ba buur jekku ko gañe ko indi ko ci biir xare ba ñu kooku mooy jaam ala kulli xaal mbir yu bare bari yoo xam ne yëkkati nañ ko ci wàllu aada ak cosaan nag ba mu àgg foofu ci wàllu social ñi di ko dund noonu lañ ko màggale waaye nag la ca metti mooy dafa dem ba am ay jeexit nag yu yu rëy même ci wàllu lislaam loo xam ne wax dëgg yàlla ni mu tëddee waruñu woon a tëddee mooy dem nañ ba wàllu diine ji dafa am ñoo xam ne dañ ko dañ leen ko jagleel mooy ñiy tudde ñu noobal ñi nga xam ne ñoom seeni maam a démb ak bëkk démb ñoom jàng rek lañ xam ak jàngale ñeneen ñi ci des ñii ñoom seeni ñooy sët yi nangam yeeg nangam yeeg nangam yi ñu suufe la ñooñu moom seen mbir moom garaawut mën nañoo topp ci ñii rek loolu moo waral li nga xam ne société bi nga koy dund euh, alhamdulilah ñàkkul ne mi ngi tane béréb yi baree bari nit ñi dem nañ ba xellu xam ne mbir mi doonut mu rëy moo xam ne mu jar tàqali diggante ay jullit lañ ñenn ñi dem nañ ba am na yeneen yoo xam ne soppi na valeurs yi léegi nit ñi léegi ñu ngi yëkkatikoo yeneen yoo xam ne bokkut ak yooyu léeg-léeg lu ci gën a bari alal la ñuy yëkkatikoo ci kanam nit ñi wala yu nuroog yooyu waaye lu bari ci yu mel noonu moom mi tàmbali seey li nu itteel foofu yépp du foofu mooy <coughs> wàllu diine ji nit ki nan la aada ak cosaan ak baaxu maam di demee ba dox digganteem ak nangu dëgg nag ci wàllu diine foofu la fi mbir mi di amee mooy su demee ba fanatisme dugg fanatisme mooy lan mooy baay ak maam ci lislaam lañ nekkoon juddu ci yaru ci màgg ci jàng ko ci kem moyen ya fa nekk lañ jàng itam ñu jàng ko ba xam ko bañ ko xamee it ñu jëfe ko ñu rafet njort lool ci nekk sellal la àndaloon ñu def loolu ba mu jeex nag ñu dem fa seen i moyen toll woon de man ma ñëw di sëtub sëñ diw gëstu ba xam ne saa maam kat ay téere lii la ci jot a bind mu jot a xam fii la yam ma ne foofa la yëf ya yam dara du ca dolliku dara du ca dolliku ku andi leneen loo xam ne bokkut li sama maam xamoon kooku daa bëgg a ayibal sama maam daa bëgg wax ne amul woon xam-xam waaye fekk du loolu ñooñu defoon nañu effort bu mag bu rëy rëy jéem nañ seen kem kàttan ba def li nga xam ne man jàpp naa ne seen jaan wàcc na waaye ñu ñëw seen gannaaw nag seen jaan wàccut lu tax <coughs> jamono yi nga xamee ne tubaab bi moo fi nekk ndar gii nga xam ne moo doon yoon wi nga xam ne liy dugg ci réew mi fi lay jaar ubbi woon nañ fa benn bureau boo xam ne la ko tax a jóg mooy contrôler bépp téere boo xam ne buy dugg ci réew mi la ña nekkoon ca bureau boobee xam nañ leen xam seeni tur suñ andee téere ñu jàng lañ ba ne arr xam arabe xam français xam lu nekk ci yi ñu aajowoo ci liggéey boobu suñ indee téere soo dukk-dukkee dem Mauritanie ba jàngi ba ñëw gàddu say téere di dugg si wala nga jóge ci Maroc wala Algérie wala foo mën a dem fa tànk yu gudd yee yemoon boo ak seen ndar rek nga mën a jaar si boo dikkee bureau boobu da ñëw ne ba cëg say téere ñu jël ko benn par benn suñ xoolee ba ne bii de moom xëy na ci fiq rek lay wax nit ki nu muy jàngee nu muy jàppee nu muy jullee nu muy mel noonu bii moom mën naa dugg daal ci ciy teg cachet bi ak téere ngi boo xam ne dafay wax rek ci langue arabe littérature ak lu ci aju grammaire nangam nangam ñu ne ah, bii baax na mën naa dugg arabe rek la beneen téere boo xam ne day jàngale li ñuy tudde tasawuf sëriñ baakub dongoom ni ñuy dunde nu s nu dongo ba war a jàppe sëñ baak yu mel noonu ba àggale ñu ne boobu mën naa dugg téere nag boo xam ne day jàngale pas-pas wala lu jëm ci jihaad wala xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kese ñu ne yii mënuñoo dugg fab sànni ci biir dexu ndar googee noonu lañ doon jëflanteeg ñoom kon ki doon dund ci biir context bu mel noonu nga xam ne la duggoon loola jàng na ko ndax kat fànn yi ma tudd boo ci xoolee benn bu ci ne am nañ ci ay koo yoo xam ne fañ àggu boo demoon ci penku dana néew nga gis ñu fa àgg bu dee ci wàllu adab ak woy ci arab ak wax koog yu mel noonu jéggi nañ ca dayo bu dee ci fiq fiqu malik bii ñu fi dugal jàng nañ ko dégg ko xam ko li fi ñëw ciy téere la ko tàmbalee ca almuqaddima al izziya la ko tàmbalee ca risaala la ko tàmbalee ca muxtasaru qalil moo xam awal balaag saani baag yeneen téere yu demee noonu ay misbaaxu saalig ak téere yi nga xam ne mooy fiqu maalik jàng nañ ko mokkal ko jàngale ko ubbi ci ay daara bu dee tasawuf taxul ñuy wax moom mooy mooy yëf yëfa nga xool yeneen fànn nag yoo xam ne lislaam da ko aajowoo xam-xamu xadis ana borom xam-xami xadis yi ah ku gis yaa gis de waaye man gisuma ku taalif ab téere ci mustalax wala li ñuy tudde jarx wa taadil xam-xam yoo xam ne ci lañ mën a sukkandiku ba xam ne xadis bi wér ak bu wérul suñuy maam de effort bu nekk def nañ ko waaye moyen boobu ñu leen mu agsi njàngalem xam-xamu xadis moo xam ne day teg tegtalu ci kaw dalil yi masala baa ngi dalil jaa ngi masala baa ngi kooku méthode méthode la méthode boobu agsiwut kon xeex nañ leen xeex boo xam ne ñoom it jaamaarloo nañu xeex boobu mooy seen kem kàttan def nañ ko ba la fa nekk moom jàng nañ ko man ko bëree itam nag ba yëf ya fayut continuer jaral na leen suñ demee ba ñu tere leen sax ne du ngeen ubbi daara ñu bàyyi fépp foo xam ne yoon la wu tubaab bay jaar muy raay ba ak tëli ak lu ko nuru dem ba ca jett yu sori yi nga xam ne jot si wuñ fa ñu ubbi foofa seen daara alxuraan bu demee ba jaar ci def ko ci sa biir kër sax nga def ko ci sunu maam ji ñuy wax moor ko jëkkumba juub borom al muqaddim al kokkiya pour nga xam rek effort yu mag yoo xam ne mag ñi doon nañ ko def ci xam-xam <coughs> risalatu bnu abi zaydan al qayrawaani bu siiw bii nga xam ne ñëw na tasaaroo fi néew na nga gis risala bu mat ndax risaala dafa am bunt boo xam ne ci jihaad lay wax téere boobu bi gaa yi ñëwee bi ñu ko contrôlé gis ne téere bu am qiima la ci fiq waaye buntu jihaad bi ci nekk dafa garaaw dañoo dagg la aju ci jihaad boole ko ci la ñuy sànni bàyyi téere bi mu jàll ñi ko doon jàng ñëpp dañ koy jàng te jihaad nekku ci moor ko jëkkumba moo jéggi frontière ba dem Mauritanie fa ibnu buuna jàng fa risaala mokkal ko risaala bay cosaan bàyyi fa téere yaag yëpp yor loxi keseem ñëw jéggi bi mu agsee jël xalimaam daal koy bind ñu am risaala bu mag ba léegi risaala yu bari yoo xam ne ñu ngi koy móol dañ ko sukkandiku ci bu njëkk ba nga xam ne boo ko ubbee doo ci gis kitaabul jihaad waaye nag bu mat bi moom am na ba tey bu mat boobu moom itam am na ba tey kon yow mi ñëw nag tey di sëti ñooñee nga xam ne def nañ effort ba ba yëf yëf fayul nag ba agsi fi yow kañ la bëre ba doon kañ lañ doon nangu nangu ne daan nañ leen mooy lañ bañoon nag am mooy da ngeen ne woon aqida du fi dugg dugal nañ ko nag tey te danañ ko tasaare da ngeen ne woon xam-xam xadis du fi dugg ba def sun maam yi <coughs> sun maam yi la ngeen leen def danañ ko fi dugal danañ ko jàng dégg ko danañ ko tasaare ci askan wi loolu moo doon sun war-war ci biir loolu ci lan doon nangu ne gañe nañ kon noon ba ndax su fekkoon ne ngañaay li day amee rek ci benn étape kon danañ wax ne yonente ba ak saxaabam gañe nañ leen ca bisu uxut bala xew xewee waaye ngañaay ba finalité ba lay doon fuñ mujj fuñ mujj li tasaaroo a tey fenn fu nekk mu nga fa mbooloo mi toll nañ lañ war a toll la noon ba doon jéem muy suul yonente baa ki saxaabaam loola amut kon jullit yi gañe nañu waaye ngañaay la du foofa nag ca oxul gannaaw bi la la xewoon fa ndar su fa yëf ya yemoon kepp kon mbir mi dana dana xaw a ñaaw lool waaye nag doom yi nga xam ne ñëw nañ gannaaw bi seen responsabilité réy na lool foofu moo di ñëw ne rek lii laa fekkoon saa maam téere bii la jotoon a dugal moom la jàngoon bi mu ko jàngee itam melokaan wi rek la ci jële woon kon nan yem ci loolu képp waaye bu ca dara dolli kooti bu téere ñëwee jóge feneen nan ko tudde téere yoo xam ne yu weex la yu xonq yee ñoo baax mooy yu jëkk ya fa nekkoon ñi ne téere yu weex ya ma ne melokaan woowu de suñ ko yoree te yem ci képp dolliwun ci dara ji mënoo jàng pas-pasu ahlu sunna wal jamaa ba mu gën a leer ci suñu xel nu mën koo amal ay tegtal ci alquran ak sunna jàngunu li fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi woon ak i saxaabaam ci xam-xam ba ma ne kon danan wor waxuma wor suñ digganteeg suñ diine waaye maam ya sax danañ leen wor ndax ñoom bëgguñu woon loola kon mbir a ngi foofu moo xam ne mu mat a bàyyi xel la moo di maa wajadna alayhi abaana lii lan fekkoon suñuy bàyyi nekk ci kooku lay la woo xam ne ña ko daan jëfandikoo duñ ay jullit li nga fekkoon baay ak maam ak nijaay la ca baax alhamdulilahi loolu dañ koy jël la ca doon njuumte te xam ne dañ leen koo teg waaye effort buñ mën def nañ ko njuumte boobu dañ ko duñ ko jël di leen ca roy ndax duñ amul ay fa sun kanam borom de suñ leen rawee ci njuumte ma ne duñ amul ay fasun kanam borom yu mel nii nag boo ko waxee day diis ci yenn bopp yi ñu ne ah ñii moom dañoo ñëw contre mag ñi ñu xam ne mag ñi noo ko bokk maanaam kenn moomul mag ñi nu des suñuy bàyyi ak suñuy maam ñun ñii di wax ak yéen ñooñu ñooy mag ña suñ ñëwee sañ a wax benn baat wala ñuy critiquer lu dul noona ca loola noonu suñ bopp la ñuy critiquer lu tax mooy diine ji moo jiitu lépp diine ji moo jiitu lépp responsabilité yi suñ kanam borom dañ ko war a teggi mbir yi dañ ko war a wax mu leer mbooloo yi dañ leen war a jàngal diine ji dañ leen war a teg siraatul mustaqim dañ leen war a digal lu baax tere leen lu bon teg leen ci alxuraan ak sunna lu dul moom dañ leen ko war a bàyyi loo loolu suñ ko defut rek war nan maam yi war nan lislaam te dana ñàkk aw lay fa suñ kanam borom <coughs> loolu moom kenn ku nekk war na ko dégg alxuraan ŋàññi na lool lool lool ñi nga xam ne melokaan boobu lañ yor <coughs> bokk na ci yim ko ŋàññee mooy fi mu waxee ne suñ leen waxee yasmaunakum id tad'uun aw yanfaunakum aw yadurruun lu ñuy tontu bal wajadna abaana kadalika yafaluun ña doon jaamu xërëm ya <coughs> bu ñu leen laajee ne leen waaw seen xërëm yi samp ay bant di ko jaamu ndax bant bi boo koy jaamu da lay dégg boo koy woo naan ko defal ma lii defal ma nangam defal ma ndax mi ngi koy dégg kooku laaj bu rëy la ci jaamu ko tu xërëm waaw ndax dafa am njariñ lu ñu leen di jariñ ci jaamu gi ngeen di def wala ñàkk gee jaamu daa am lor loolu lépp ay laay laaj yu rëy la de waaye lu ñuy tontu mooy non kat nii leen fekkoon suñu maam di ko def dañoo ñëw di ko def noonu itam loolu mooy seen tontu loolu loolu mooy effacé xel mi la yàlla jox ndax li nga fekk maam di ko def te nangootoo caa xool ba xam yanu na maanaam déet ah ndax borom bi dama ne awalaw kaana abaahum laa yaqiluuna shay'an wala yahtaduun su fekkoon ne bàyyee ci boppam amuñu xel gindikuwuñu itam da nga leen di topp loolu moom du yëf yi koo xam ne ko am xel la kon ala kulli xaal jullit bi aada yi ak cosaan yi ak baaxi maam yeeg ya maam ya nekkoon na ko mu nekk gàllankoor ci digganteem ak ñi di ko won dëgg mu won gannaaw dëgg lànk ko tomb bi nuy mujjee parce que yéene gàttal insha allah xam ne gàllankoor la buy <coughs> te nit ki nangu dëgg mooy al ojb al ojb nag feebar la boo xam ne moom dafay alage dafa amit yu ciy juddoo al ojb muñ ko waxee moom mooy yéemu ci sa bopp yéemu ci sa bopp li ñuy wax woru da ciy juddoo li ñuy wax rëy da ciy juddoo nit ki jamono yoo xam ne ni yëg na ne moom mii ku ràññiku la yëg ni moom mii ku war a kuy damm boppam la ci kanam nit ñi kuy bége ay mbiram la ba jàpp na ne lu mat la amatu lenn lañ ci war a dolli jàpp nay jikkoom ak ki jëfam ak ki waxam yépp yuñ sant la njuumte amatu ca kooku feebar boobu mu ngi koy dugg moo tax abdullah ibnu mubarak rahimahullahu dafa ko xamle ci benn expression bu gàtt mu ne mooy an tara anna indaka shay'an laysa inda gayrik an tara anna indaka shay'an laysa inda gayrik zahabi moo ko tudd ci siyara alami nubala nee na mooy nga gis ne am na lu nekk fi yow ci mbaax wala ci xam-xam wala ci nangam wala ci nangam ci xeeti mbaax yi loo xam ne yow rek yaa ko jagoo mën a taxaw ci këram li dina am naa lu kenn amul nee loolu mooy ujj <coughs> bu àggee nag moom yéem sa bopp moom yi nag ci tuutal ñeneen ña nag ak wàññi lañ am kooku mooy àgg nag ci waru mooy dem nag su demee ba àgg nag ci yemut ci wàññi leen rek waaye dem ba lor nit ñi sax nag pour sa bopp mën a yëkkatiku kooku nag mooy al kibru mu mag nag bi nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala wax ne ak làmbaayam la goo xam ne ku ko xëccoog moom mu toroxal la moomu nag maanaam yéem sa bopp moomu doonut loo xam ne dafay dal nit ki rek mu daal di bañ dëgg fi saas waaye day am ay maraaxil muy ay étape yu muy jaar léeg-léeg xool gi muy xool li ko yàlla may ci xam-xam li mu ko may ci balaaxa mën a wax fasaaxa mën a jottali loolu day tax mu dem ba jàpp ne moom mi weesu na fu muy jëriñooti ci keneen yëg-yëg boobu day tax mu dem ba defe ne weesu na fu mu jëriñooti ci keneen su demoon ba mu yàgg mu wax dara loo xam ne xam na ne njuumte la am ku wax loo xam ne dëgg la waaye kookaa ko gën a suufee ci yooyu yi ma tudd day wax ne ah ku mel nii de waaye njëriñ warta mën a jóge ci moom di ñëw ci man ku tal ne man kooku feebar bu rëy la feebar bu rëy la ci nit ki ndax borom xam-xam yi xam nañ ne seen taalube yi gën a suufee ci seeni taalube léeg-léeg ñu jariñoo ci ñoom loo xam ne buñ ko waxee buñ ko waxut njariñ la loo xam ne xamuñu ko woon wala buñ ko xamee fàtte woon nañ ko ndonga la ñëw fàttali la ko nga jariñoo kuy am loolu nag di ci romb bis bu ne nga di ko yëg war nga euh, àgg foo xam ne doo nekk ci palaasu naan kii ku ndaw la mënumaa jariñu ci moom léeg-léeg jublu si ga ko nit ñi jublu si nangoo jël ay waxam nangoo roy ay jëfam nangu koo bàyyi xel lool loolu mooy jur ci xolam ak rëy goo xam ne su déggoon sax keneen koo xam ne ku góorgóorlu ci diine la di yëngu bu koy xool ñu ma topp topp na ko ñu ne ah déedéet ñoo kooku kat moom kenn topp ko sax boo demee sax waaw ah, kooku kon tuute na weesoonte naa ak di dellu gannaaw di jël wax joo xam ne ci moom la jóge loolu ay yëg-yëg la yoo xam ne duñ ko dekk di su ko déclaré waaye mën na si na koo dund ndax suñ jamono dafa dem ba mel ne mbooloo dafa doon lu rëy ku ko am rek daal di tekki dara ku ko ñàkk ñu jàpp ne koo ko a tekki dara <coughs> ñooy bàyyi wuñ xel ne yonente bi sallallahu nee na yonent yi yàlla yebaloon ñiy woote ji ëllëg ab yonent dana ñëw ànd ak mbooloo ab yonent ñëw ànd ak ñaari nit ab yonent ñëw di waaxu moom dong àndut ak kenn ndax woote na kenn wuy wug ndax loola dana ko génne ci cadre yonent yi déedéet du ci génne kon mbaax ak mbon bokkul ci mbooloo su doon mbooloo mu bari rek iblis a ëpp ñëpp mbooloo tey iblis lim yor ci mbooloo ñëpp moo leen ëpp mbooloo fu mu woote ku woote ab woote sax tudde ko diine boo ci raxee loo xam ne ci cërub iblis la bokk mbooloo ma day yokku fa waaye bu dee woote diine kese kese bu sel mbooloo ma du àgg fenn fi nag ba watuut lu gën a bari du àgg fenn fi lenn ci ay mbokk nee nañ dañ daan def lu jiitu ñuy xam ne njuumte la dañ daan def bu ñëwee ci dëkk di woote dañuy yor tama suñ tëggee ba mbooloo mi ñëw ndax tama moom boo ko tëggee ci dëkk jékki-jékki ni cëpp ci dëkk rek fab tama ji tëgg diir bu gàtt rek mbooloo wër la mu ne niñ daan def suñ ko defee ba mbooloo mi wër leen ñu teg tamat yi ci suuf daal di tàmbali di bayaan maanaam jëfandikoo moyen boo xam ne ci moyen iblis la bokk ngir mën a jottali loo xam ne euh, xëy na ab daawa la wala ab woote la bañ xamee ne njuumte la alhamdulilah yooyu mbokk bàyyi nañ loola waaye li ma bëgg a wax foofu mooy léeg-léeg liggéeyub lislaam bi ngir nit ki mën a am mbooloo day jàpp ne seytaane mën na koo nax ba mu jàpp ne jëfandikoo moyen iblis mooy tax mbooloo mi mën a ñëw kon iblis moo gën a bari nit ñi mbooloo <coughs> nit ñi moo ci ëpp mbooloo kon mbooloo du miqyaas maanaam du nattukaay boo xam ne fu ñu bari fu ne rek day daal di doon lu baax alxuraan sax boo xoolee lu bari daanaka ñi gën a bari toujours da leen di ŋaañ walakin aksar naas la yaqiluun la yaalamuun yu mel noonu lay wax li ëpp ci nit ñi amuñu xel li ëpp ci nit ñi amuñu xam-xam di wax ne wa in tuti aksara min fi l ardi yudilluka an sabilillah ñi ëpp ci ñi ci kaw suuf boo leen toppee ñu réeral la kon bari gi moom du nattukaayu lislaam ñu ne ñu ëpp rek ñoo gën déedéet moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam <coughs> borom bi tabaraka wa taala bi mu koy digal nag mu woote di ko dugal digal al inzar di ko digal mu woote euh, daf ko ci wattandikuloo lépp loo xam ne luy nuróog màggal boppam la wattandikuloo lépp loo xam ne luy nuróog euh, jaamu leneen lu dul yàlla la <coughs> moo tax dafa wéral tawxid ci biiram ba àggal door a tàmbali di ko woote raxas boppam bam mu set ci xeeti feebari bakkan yooyu nga xam ne dafay lor doomu aadama door a nag tàmbali ab ab wooteem ñu koy wax ne ko wala tamnun tastakthir alxasanu albasri rahimahullah day wax ne wala tamnun bi amalika ala rabbika tastakthiruhu maanaam jëf yi ngay jëf ci sa woote boobu ñu lay digal nga di ko woote yow yonent bi ak nu mu mën a bari bari ak loo ca sonn sonn sonn bul ko jàppee mukk lu bari yow bul ko jàppee lu bari <coughs> ndax jullit bi ñaari mbir dana tax jëfam wërta rëy fi moom ñaari mbir dana tax jëfi jullit bi wërta rëy fi moom benn bi mooy boroomam mii nuy jëfal lum jëf lu nekk na xam ne boroomam yeyoo na lu ëpp loolu loo def lu ne taxul nga jot àq sa borom tabaraka wa taala am na leneen lum yeyoo ci yow loo xam ne defoo ko kon kooku dana tax kiñ jox aw sas muy bay te jeexagul kooku damu tel na kon bul bul naw sa bopp ngir loolu beneen bi ci des moo di ak li nga jëf lu mu bari bari bari ngëneelul yàlla moo lay jàllale ak yërmandeem ngëneelam ak yërmandeem moo lay jàllale waaye sa njàmbaar gi du la jàllale moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu ne ci saxiix daf ne <coughs> lan yadxul al jannata ahadun bi amali kenn du dugg ci sababu jëfam <coughs> ñu ko wala anta ya rasulallah ba ci yow sax yow yonente bi doo dugg àjjana ci illa an yataxammadini llah wala ana illa an yataxammadini llahu bi rahmati mu ne man naa nga ca biir xanaa lu dul boog yàlla daf maa yërëm kon foofu lu rëy a ngi fi xadis boobu ngir dégg ko mooy nga xam ne sa jëf ji lum bari bari bari bari bul yaakaar ne njëgu ajjana la du njëgu ajjana de moo tax walan yadxul aljanna ahadun bi amalihi baa boobu dañ ko tudde baa ul muqaabala maanaam du caagi ni sa jëf jii nga jëf dafa nekk muqaabil ci lañ la nar a fay ëllëg boo dundoon junniy at yoo xam ne mooy yàlla amu fi lépp topp topp yàlla la ñi xool loolu fu mu toll ci valeur xool lenn kendalul àjjana fu mu toll ci valeur boo yendoo bu ngoonee ñu ne say jëf jeex na wala sax mën naa bañ a mat kendal faf waaye nag ngëneelul suñu borom tabaraka wa taala muy ñu ne ah kii kët sama jaam la woon boo xam ne dama koo digal mu def ma tere ko mu bàyyi te loolu mooy la ca am solo kon naa ko faye loo xam ne ëpp na mooy lan mooy dollil ko ci yërmaande ja mu mën faa sax nag ba faw kon mu mën faa sax ba faw euh, naw sa bopp dafa doon lu rëy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci ŋàññi ko mu ne am na waajoo xam ne da koy nettali ci banu Israil mu ne dafa def jëf ju baax ba àggal génn nag di di wane di wane boppam di tiitaru ci aw doxin nee na na muy doxe rek sax bokkul ak li nit ñiy doxe mu ne qad ajabathu nafsu maanaam bakkanam yéem na ko fa xasafa allahu bihi l ard nee na bi mu defee loolu rek borom bi tabaraka wa taala ubbi suuf jekki-jekki suuf si xar mu tàbbi ci biir rek mu maasale ko waliyasu billah nee na fa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al qiyaama nee na ca biir foofu lay ne te deewut de ne ca biir lay nekk mbugal di ko fa dal ba yawm al qiyaama wa qad ajabathu jummatuhu wa burdaahu nee na nim nim toilette woon boppam njeeñ la kawar ga nam mel ak toilette yéere ba mu sol ak fañ ko teg nee na loola la doon tiitaroo ba faf loola gaar ko <coughs> kon loolu ma tawataliku la <coughs> feebar bu ne nag dafa am yuy ware ne feebar bii dal na nit bi ci jiitu moo di almannu ala allah maanaam mazahirul ujb bi ci jiitu mooy almann ala allah def dara ba mu yàgg nga yëg ne man mii lay lii ma defal saa borom bu ma ko deful woon du am ko ko defal léeg-léeg nga dégg wax ju nuru loolu lool léeg-léeg nga dégg ko ak dem ba mu yàgg ci biir loolu dugg na ci <coughs> yarhamukallah dugg na ci nit ki dem ba bi ginnaaw jàpp na ne defal na yàlla nag loo xam ne lu rëy la mu séentu mu jox ko ay cër yi mu jox nit ñi fii nag ci àdduna léeg-léeg karaama lay tudd jàpp ne man kat war na maa mën a doo bokk ci ñiy jommale nag ginnaaw nga xam ne góor góorgóorlu naa nag ba def naa nangam li wàllu yi daan def def naa ko lu tax ñi di fi fi li ay wàllu yoo xam ne dañ daan jommale te man mënu ma ko loolu yéem ko lool lu tax def ci am xelam jaral na ko lu ne léeg-léeg mu dégg ñu am na ñuy gént di gis yonente mu ne waaw lu tax man du ma gént di ko gis maa ngi julli maa ngi woor maa ngi def nangam maa ngi def yëg ne sa jaamu yàlla yi tax na daal nga am loo yeyoo ci sa diggante ak sa borom loo xam ne da koo war a def kooku ci li wane ne feebar baa ngi ci yow loolu ci la bokk ñaareel bi <clears throat> al iksaar min asanaai ala nafsi wa madxiha bari lu nit ki di tagg boppam ak di waxtaan ci boppam man nangam man maa def nangam man maa jaar fii man bu dul woon ak man nangam léeg-léeg ci làmmiñ bi lay doon léeg-léeg ay junj lay doon loolu day wane ne feebar baa ngi ci nit ki ñetteel bi alxirsu ala tasayudi al uyubi wa ishaatuha wala wa ishaatiha xir lool ci feeñal nag ayibi nit ñi dem ba àgg sax ci nit ki bu gisee ku jub jaar ci siraatul mustaqim du ko wax ci làmmiñam waaye lim yàkkamti mooy gisoon ci moom njuumte ba tasaare ko ah diw sàngam lañ doon wax nangam nangam nangam am na ci moom mu ngoog nag kon jeex na mel ni nit ñi bu buñ buñ bonee yow da nga ci am intérêt yàlla xam ne bonu nit ñi jullit yi amuñu ci intérêt jullit yi li baaxoon mooy jullit yëpp baax jaar ci siratul mustaqim jàpp ci alquran ak sunna seen doole del si ñi doon lañ doonoon démb foofu la intérêt bi nekk suñ gisee mbokkum jullit mu juum ci dara ñu jàpp ci loxoom ndànk ndànk delloo si ko waaye buñ dimbali seytaane daa ne ku génn nga rek jeex na juum nga génn nga kon demal mu jeex léeg-léeg sax foofu njuumte du am bi ci des ci yi ne feebar bi dal na nit ki an nufuuru min an nasiha daw laa biire fañ ko wa karahiyatuha ak sib ko wa buxdu naasixiin ak bañ laa biirekat yi xam ne bu nit ki dafay njuumte nit dikk ak yar ak teggin laaye ko biir mu mer kii dafa ñàkki teggin lu tax mu di ma wax nangam moroomu baayam laa léeg-léeg loolu lay wax moo tax ci laayante biir bunt bu am solo nag boo xam ne mbokk yi war nañ ko bàyyi xel ndax bunta ñàkk ci xeer bi ginnaaw njuumtee ngi am laa biir daa war a am ndaw ñi lu bare bari problème dana di am seen digganteeg mag ñi rawatina sax nag ci jàkka yi ndax léeg-léeg imaam day ñëw ndaw xool gis ne am nay njuumte yu nekk ci biir julli gi loolu moom dana di am li koy waral it xëy na du tooñaange imaam waaye tooñaange li mbir yi tëdd la société bi niñ ko tërale tànniinu imaam ak buñ ko tànnee ba noppi itte jëñ ko war a jox loolu moom wax dëgg ku xam ni addunay doxe ci réew yi ittewal islam xam ne doxewul doxewul noonu tànninu imaam ci réewi lislaam yi nga xam ne jox nañ jàkka palaasam ay concours la ñuy def ni borom société ba di def pour bëgg tànn tànn ñu fay jël ay concours la ñuy def pour tànn imaam njàngum alxuraanam ndax war naa mën a jàll bu jàllee baagal njàngum fiqam ndax war naa mën a jàll bu jàllee expérience am ci daawa nan la war a mën a waxee nit ñi ak yu mel noonu concours yooyu ci la ñuy génnee imaam yi def leen it nag ay catégorie def leen ay catégorie yoo xam ne kii dañ naan imaam la joo xam ne war naa mën a jiite carte bañ lay jox war naa mën a jiite jàkk ji nekk ci koñ bu ndaw boo xam ne as mbooloo su ndaw fi ju day dikk julli juróom rek dem yoonam bu amee téere bu muy jàngale war naa mën a yëkkati téere téere sàngam di ko fa war na mën a nekk beneen catégorie boo xam ne dañ naan kii imaam la joo xam ne war naa mën a jiite jàkk joo xam ne nit ñi dañuy julli si ajjuma muy taxaw ci seen kanam di xot ba ñuy dégg ak yeneen ak yeneen suñ ko defee ba àggal ñu yem ci ñu loolu mais dañuy continuer di leen defal ay ay séminaire ay formation yu continue yu continue yoo xam ne at mu nekk da dañ cay nekk jóge naa fii dem dem ca ca Koweït benn dawra boo xam ne imaam ya nekk Koweït lañ ko doon defal ànd ak ne lépp a ngi seen biir borom xam-xam ak yépp ñi tànn ay nit ñi rafet ci ñoom njort ci monde islamique bi ñu ñëw bokk ci biir mo kamar boobu pour imaam ya nekk ci biir réew moomee ñi mën a jariñu ci seen moroomi imaam yi ngay bind ay document di wax ak ñoom di leen dolli ñuy dolli loolee buñ ci jógee ñoom imaam bu nekkoon ci suuf mën naa yëkkatiku jàllaat ci beneen catégorie beneen bu nekkoon ci kaw mën naa yéegaat léeg-léeg nag imaam yéeg ba noppi du wàccaat mbir yooyu réew yi nga xam ne jox nañu ilimaan place itte jooju defe naa ne dañu doon nañ leen ko jox waaye fii nag nu ñuy tànn imaam wax loolu nekku tànn ko ba àggalit continuer di ko former loolu néew na wala amul lu mel noonu nag kon njuumte ma ne njuumte lay am ci biir jàkka ja ak imaam ji njàngum alxuraan ak yëf yi macha allah loolu mën naa doon lu jógewut ci moom waaye ñépp ci am responsabilité état am na ko ci ñiy liggéey ca mbooloo lislaam yi am nañ ko ca sëriñ sa am nañ ko ca boroom xam-xam yi am nañ ko ci ñëpp am nañu responsabilité ci situation bi jàkka di dund tey ñëpp ko am kon nag su fekkee njuumtee ngay am ca imaam ndaw li nu mu war a def <coughs> ndax dañuy julli ba seulement rek mu ñëw salaamaaleykum imaam waaleykum salaam yow di ni nga jàngi faatee baaxul dara du sotti du noonu soo ko defee dara du sotti ndaw a ngi gis na ci imaam bi ci jàngeen wi wala ci na muy jullee wala rukkooya gaaw na sujjóotee gaaw na yu mel noonu gis na ci biir jàkka ji mag moo xam ne ci mag yu jàkka ji la te xam ne ni kii ku mën a wax ak imaam la mu ñëw gisee ak moom ne ko soo mënoon a waxtaan ak imaam ci nàngam ak nangam nangam jaanam wàcc mu daal di ku génn ca bàyyi leen ñoom ñay mag ñi waxtaan yoon wi moo gën a jub la wu njëkk wa wu moo gën a jub waaw yow imaam itam <coughs> nga toog ba mu yàgg nit dikk ne la njuum te am na ci sa li nga doon def ndax ban taxawaay nga ci war a am ndax mooy ni kii fan la fi mën a xamee loo xam ne xam na ne njuumte laa def te maa mag baayam te yow nangu na ne nangu nga ne am na ñeneen ñoo xam ne yaa mag seen baay waaye dem nañ jàng ba nekk ay ingénieur yoo xam ne liñ xam ca lañ jàng loola xamoo ci dara faf te yow lu gën a bari amaana njàngum jàkka ji maanaam jàkk responsabilité jàkka ji ñu la jox daa dox rek ba agsi waaye boo xoolee sa njëlbeenu dund ba fi nga jotee ci jàkka ji préparé wuñ la woon pour nga mën a nekk imaamu jàkk kon foofu taxawaay bi nga war a am foofu mooy yëg tuuti ak woyof ak critique boo xam ne ci biir lay doon ne ah man kat ginnaaw ay mbir ngi tàmbalee fii waaw kon man nan laa war a def ginnaaw nee nañ sama njàngum alxuraan mi am na lu ci nekk te man xam naa ne mokk na kon xam naa ne ci jàngin mi la ñoo ñoddi ab jàngalekat ca suuf boo xam ne xam nga ne kii mën naa jàng alxuraan bu doon gone sax yóbbu ko nekk kër gi bis bu nekk kaay fii ñu xool sama njàng mi ba xam lu ci sikk di jàng ci kanam muy dégg nga wax lii mu ne ah loolu kat nii la woon lii kat nii nga ko war lii nga ko diir bu gàtt du mat weer i imaam dana dellusi ci jàkka ji bu jàngaate dañ ne ah oh, kii xanaa du ko jëkk ga defe naa ne noonu bu boobaa loolu moo jaadu waaye rek daal di ferenclaay ne ko ah yow ñàkk ngay teggin maam ak sa bunt boobu daal di tëju gone ga daan nañ ko tudde ku ñàkk teggin mag ma la mu waroon a jëriñoo jëriñoo ma ne loolu lu ñuy dund la loo xam ne eh, ci diggante laayante biir ñii laaye biir war nañu xool yoon yi ñuy jaar ba seen liñ bëgg a def àgg ña ñuy laaye biir it xoolaat seen bopp ne nit du weesu njuul ma minna illa naasixun wa muntasix kenn ku ne ci nun daa war doon kuy laaye biir nekk itam ku ñuy laa laaye biir ndax kat ka lay laaye biir moom it ma tudde amaana mën ngeen a dox ñaari jéegoom nga gis ci moom ne waa loolu kat moom it du noonu du fekk fayoo tax waaye bëgg lépp baax a tax bëgg lépp baax a tax juróomeel ba al ictidaadu bir ra'y léeg-léeg nag loolu nattu la boo xam ne dana di dal ba même boroom xam-xam yi maanaam dër bopp dër bopp ci masala xas naa gis nangam daal jeex na duutuma dellu gannaaw gëstu naa gëstuwuma nit am na ci xalaat nit amu ci xalaat lii daal nii laa ko gisee ab tampon la teg naa ko ci kaw jeex na loolu moom moom musiba la moom itam ndax ginnaaw loolu ra'yi la tudd muy gis-gis ci wàllu masala boo xam ne masalam diini la di fiq gis-gis bi nga ci am toujours del gëstu ndax amul beneen bu ko gën a jub ndax amul beneen bu ko gën a dëppoog alxuraan ak sunna nga xam ne foo gisee boobu rek pare nga pour bàyyi liy jël bële ba ca des loolu melokaan la boo xam ne euh, su dalee nit ki muy loo xas gis rek doo ca dellu gannaaw kooku ne yëg ni feebaroo xojju muy naw sa bopp kooku dugg na ko juróom-benneel bi mooy mooy soxobatu almutaawaa wal xirs ala altaxallusi min altabiaati walmasuliyat wa taxqiqi alqanaat alchaxsiya am na ñoo xam ne jëlee ci keneen lu jafe ci ñoom la am na ñoo xam ne def dara njuumte ba nangu ne responsabilité bi ci seen kaw la tegee lu leen jafe la faaw ñu jéem koo gëstul keneen ku ko yanu ku dul ñoom am na ñoo xam ne li ñu nekk bu fekkoon ne njuumte la dañ jéem a gëstu ba gis lu leen convaincre ñoom ci biir pour ñu téye njuumte boobu loolu nag musiba la boo xam ne ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoo war a gën a sori nit ñi loolu ndax dañuy wax ne ahlu sunna wal jamaa li leen wuutaleeg ñeneen ñi moo di ñoom al istidlaal la ñuy def qabla li artiqaadi wal amal bala ñoo fas dara wala ñu koy jëfe dañuy seet dalil ba ba noppi ba mu wóor leen ne fii lañ ko teg ñu door ko fas wala ñu jëfe ko ñeneen ñu dul ñoom nag dañuy def safaan bi mooy fas la nga fas wala ngay jëfe la ngay jëfe ba noppi nag jóg nag di ko wëral di ko wëral dalil la kooku différence bu mag a mag la su fekkee nag nit ki day def dara ba àggal nit ñi ne ko ah loolu kan njuumte la mu daal di jóg dem di gëstu def tout pour xool lu wane li li mu def dëgg la kooku moom ma ngay génn manhaju ahlu sunna ma ngay dem di jëli beneen manhaj boo xam ne mooy al itiqaad wal amal qabla al istidlaal su fekkee nag dafa istidlaaloon bu jëkk maanaam fasul wala mu jëfe waaye dafa jëloon dalil dalil booba ñu wan ko ne ko boobu kat dafa am beneen bu ko gën a wér wala ni mu istidlaale woon moom ci boppam njuumte la su boobaa sañ naa dem na gëstu jiwaat ba xam loolu noonu la am lépp <coughs> bokk na ci yi wane feebar bi ci nit ki moo di attaraffu an alxuduri walmusharaka fi baad al anshitati al ilmiyati wa daawiya lenn ci njiiti daawa yi ñoom laay waxal foofu yëkkati nañ seen ba teewe yenn activités yi daawa yi kooku weesale nañ ko seen bopp loolu nag njuumte bu mag nit ki ak fu mën a toll fu nekk nag teewe si biir liggéeyu lislaam bi loolu moom euh, du ko weesu ak nekkam ci biir sax nag dafa am leneen lu mu jur nag mooy yokk leen defe naa teewaayu amir ci jataay bi wane na beneen couleur boo xam ne alhamdulilah day wane ne ndaw ñi nekk ci biir mbooloo mi day ñoo organiser ñoo yëngu waaye nag seen i njiit itam fàtte wuñ leen ñëw nga teew ca biir nekk ca biir activité ya lu am solo la bokk na formation yi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon na ko formé saxaaba yi mooy ñu nekk di liggéey mu nekk seen biir sax nag foofu di liggéey su dara ñëwee loo xam ne dañuy fabaka yëkkatee ka teg mu nekk ci seen biir di fabaka yëkkatee ka teg loolu ruux la boo xam ne ak dundam ci biir mbooloo mi wàññiwul dara wàññiwul dara dana tax nit ki ña ko bëgg a yëkkati ko ba bëgg koo teg foo xam ne eh, fu bokkut ak fa mu nekk la loola mu bañ ko mu bañ ko wàcce boppam ndax bakkanu doomu adama day noon boo xam ne bu ma ta wattandiku la Omar ibn Xataab radiallahu taala anhu benn bis <coughs> rek génn dem ca teen ba te mooy amirul muminin daa di root génne benn baag gàdd ko jëm ca kër ga nit ñi da wóor ko yaa amirul muminin lii lan la njiitul jullit yi ci kaw suuf toll fa mu toll Omar ibn Xataab ñëpp ragal ko ña ca penkoo ñi ci sowwu mu gàdd baagum ndox nag di root di yóbbu këram ñu laaj ko lii mu doon bi mu ñëwee ba agsi ba sottim ndoxam ba toog mu ne leen damaa toog di xalaat ci sama bakkan yëg ne man maay amirul mu maay njiitul jullit yi ci kaw suuf loolu xaw a rëy ci man tuuti bi mu rëyee ci man nag ma ne bakkan baa ngi may gaje xaaral ma ñëw toroxal ko mu ne loolu moo ko yëkkati woon moo tax mu dem tànq am ndox di ko root di ñëw xoolal loolu kon nag bakkan bi léeg-léeg mu àgg ak nit ci koo xam ne dana jaadu nag mu wàccaat dellusiwaat ci biir nit ñi nag ne leen maa ngi kenn laa ci yéen yi ngeen wax yëpp ay ay mbir la yoo ne fii la ma toppee waaye bu ma génnee jëm ci bàmmeel ba kenn du ma laaj lool te loolu du ma topp ki nga tànn tey mu nekk amir buy dugg ci bàmmeel bi imaara gi fii la koy bàyyi balaa dara xew rek ñu tànnaat beneen amir mu toog palaasam montar duñ takkoon sax fi la koy bàyyi ñu takkaat ko kon foofu nag yemat a yëg ci sa biir bakkan <coughs> di fa yëkkati ko sa bopp du mooy yooyu kon loolu lu mat bàyyi xel la kon amul benn vérité ci ne jeexit yi nga xam ne naw sa bopp muy al daf koy andi ci jullit bi di ko andi ci nit góor góorlu yu garaaw a la yu doy waar la jullit bi war na ko wattandiku <coughs> ndax kat feebar boobu kum jot moom dëgg moom ay buntam dana sakk su fekkee nekkul woon fi yow pour nga jëleete ko ci nit dana jafe lool kon kooku lu mata wattandiku la noo ngi ñaan sun borom tabaraka wa mu gindinu nu xam dëgg te buñ ko xamee nu nangu ko buñ ko nangoo jàpp ca jàpp yi nag wu dëgër woo xam ne dara duñu ca delloo gannaaw ba kere nuy wuy ji sunu boroom tabaraka wa taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala wa baad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, dafa tolloog li wolof yi wax ne fekkee muccut buñ la ne jëlal kàddu nga ne du ma jël kàddu dafa mel na dafa am lu la waroon nga bañ ko ci boobu kàddu rek laa jëlee kàddu ngir ñaari mbir bi ci jiitu ki nga xam ne moo ñu doon defal waxtaan wi duma wax ñu doon ko sant ko damay wax ñu ñaanal ko yàlla subhaanahu dolli ko xam-xam ak kattan ak woyofu yaram wu xam ne fu jullit yi soxlaa ci moom mu man koo taxawee ndax gëm naa ne tollootut ci mën a taxawee soxlaay boppam na mu waree waaye nag soxlaay jullit yi moo war doon soxlaam te alhamdulilah defee na ko noonu kon dañuy ñaan jullit yépp ñu ñaanal ko yàlla subhaanahu wa fayal ñu ko yiw te itam lépp li nga xam ne yàbbil nañu ko ci njëriñ yàlla subhaanahu wa taala warsagal ñu ñu jëfee ko beneen bi mooy ci biir waxtaan wi dafa wax kàddu gu rëy fi man <clears throat> ma jàpp ne guñ war a bàyyi xel la mooy ñi nga xam ne dañoo jiitu woon fii ci réew mi de sunuy mag ngir leeral waxu yàlla ak waxu yonent bi sallallahu alayhi ñu ne kii dafay contour mag ñi kii dafa bëgg a tuutal mag ñi mu wax ci wax jooju koy dañ koy fàtte mooy kii wax moom ci boppam mag ñi ay magam lañu maanaam fàttale ko ne mag ñun ñu des ko ñun a tuutal boppam dama ci joxe misaal bu gàtt bu xam ne suñu mag mu baax mu ñeme dëgg benn waaye dafa ne mu mag ne cotan man daal ñuy liggéey def xam fu ñu ko jëlee lii soof na lool dem ne ko sëñ bi nit ku baax du tuutal kilifaam nit ku baax du tuutal kilifa te li ngay wax tuutal sa kilifa la man de alaaji Malick photo yi ñu ma ko wone yëpp yeel yàllaa njëkk a gis Sëriñ yi ñu ma wone yëpp yàllaa njëkk a gis nit ku baax du tuutal kilifaam waay mu noppi li ma bëgg a wax ci loolu mooy mag ñi ñoo leen bokk fii kenn ku nekk war naa moytul magam xas la koy waral nag léeg-léeg mooy li ñuy wax kabeo ngaaka di tagg sa mag ci fu xam ne yaa ngi koy xas te yëgoo ko wallahi kenn ku nekk ci mag ñi ñuy wax bu ñu xoolee la ko jiitu góor góor lu gim def moom nangoo fippu ca ña ko jiitu woon dafa ne fàng ñépp teg ci bët ngir wuti dëgg dëggu googa mu am fu mu ca yegg ñun ñu war ko koo yeggaleel mu kontaan lool ci bët ñam bàyyi gannaaw yeggaleel ko ko yow nga ne nañ ko sulal la mu doon wut wax dëgg yàlla danga ngaa jàpp ne yaa moom mag ñi waaye ñay sulli dëgg googa mag mi bëggoon a yegg ñoom ñoo moom mag ñi kon mag ñi nañu leen ormaal ci yëg ne la ñu mënoon yow def nañ ko gàcc ngàllaama waaye nag mboolem fent yi am ci àdduna ña fentoon dara nit ñi sawar nañ ci ñeneen ñu ñëw yokk seenu fent ba mu yegg foofu ka ko fentoon xalaatu ko woon xoolal oto xoolal avion xoolal leneen ak leneen ña ko fentoon fay yemoon ak fi mu yegg tey diina yàlla ji ña bàbbee woon ci suñ làkk yi nga xam ne xamuñ ca woon dara jël ca lu toll na lañ ca jël waaye lu rëy a rëy des ca lu xam ne ñàkk fosoo xañut leen ko waaye noon bu leen gàllankoor moom moo leen ko xañ mu yegg si ñun yàlla dimbali ñu bañ mën a daan noon booba ci la tënku woon tinkeeku la làqu woon feeñ ñu mën a siggil sunu mag ñi ne leen gàcci ngalaama fa ngeen yeggoon mottali nañ ko ba yegg si nañ fii yéen a xàll yoon wi waaye ñun itam godrone nañ ko mbokki yi ndax loolu xas mag ñi lii daf ko wax mu yëkkatiwaat sama xel lool ne mag ñi ñoo ko bokk kenn xasut ay magam dañoo yëkkati mag ñi ci fañ toll woon nañ ko yeggale ci fa ko mag mu mag ma bàyyi woon ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa mooy mag ci diina ji moom ak ci saxaabaam ñi ci des gone yi lañu gone yi nag dañoo magante ci seen biir kon yàlla nañu yàlla boole nangul nangul suñu waxtaankat bi ndaw yi nga xam ne ñoo organiser lii yàlla yokk seen kàttan yokk seen cawarte te seen yëg kàttan ak cawarte yépp mu jëmale ko ci luy delloo si sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu